jigéen météroog sama yaay jigéen mottali cër bi nga am si man na kan mooy soxna jaara buso mu ngi tudd soxna maam mariama buso di doom ci sëriñ muhammadu buso Mouhamadou Bousso di toom ci Matabara Bousso Awa Mbay doom ci Xamaat di doom ci Aliyu buñ ko toppee ma bañ a jël temps bi ñeent fukki maam ak juróom benn moo dox digganteem ak ngën gi mbindéef sallallahu alayhi wa sallam kon maam jaara Bousso mi nu war a waxtaane ci surafaaw yi la bokk kaanat sharifa dafa nekkoon jigéen ju tedd yoo xam ni mu ngi sëttu ci yanant bi sëttu ci sayduna xasan di doomi fatumata bintu rasul ak sayduna aliyu juram wu jigéen di soxna Aysatu Waalo Mbàkke boroom naawel soxna Aysatu Waalo Mbàkke di doomi Ahmadu soxna Buso Mbàkke Ahmadu soxna Buso Mbàkke di doomi maam Maara Mbàkke mi nga xam ni boo ko tuddee tudd nga Sénégal ci ñépp ñu fi taxawu diine ba diine lislaam am fi doole maam maaram mi ñuy wax àddinaanu képp ko baax ci Sénégal mooy maami maam Mariyaama Buso turam dëgg nag soxna Mariyaama la tudd ñu dëppee ko jigéen ju tedd ju yàlla bàkk ci alquran tudde ko saar muy sóoratu Mariama moo jàngee Fatiha jàng Baqara jàng eh, Ali Imran jàng Nisaayi jàng Maayida jàng Lanaam jàng Laaraaf jàng Lanfaal jàng Tawba jàng saar wu nii wax Yunus Huud Yuusufa Raadi Ibrahima Xijri Naxli Lisraayi Kahfi Mariama ci tege saar woowu yàlla di bàkk soxna su tedd soxna su sell soxna su sàmm jur yanantu yàlla Isa soxna Mariama mooy benn jigéen bu am saar wuñ ko tuddee benn soraat ci alquran moom képp a ko am moo def tam kéemaan bu rëy am doom te amut boroom kër ju ko denc loolu di miracle doom jooju mooy yenentu yàlla Isa alayhi salaam sunu mbokk yee di ko wax Jésus Christ kon soxna su tedd soo soosu ko meññ di soxna Mariama yàlla fàttali ko yenantu bi fàttali ko jigéen nu jullit yépp pour ñu roy ci mbaaxam nga ak sellam nga kooku la ñu dëppee soxna maam jaara buso jaariyatullaahi nag sifa la li ñuy wax melo qualificatif la dafa nekkoon ku ragal yàlla nekkoon ku mën a jaamu yàlla boromam nekk ku daan taxaw guddi di naafila nekk ku mokkal alxuraan di ko jàng ak di ko jàngale jeexal téere xam-xam yépp ba koy tëralaate déggaloon sëriñam lool nangoo liggéey lool toog ci biir këram du wax lu ñaaw du ko déglu du ko jëf du ko doxi ñi mbokkal jamono tudde ko maam jaara jaariyatullaahi mooy la voisine de Dieu dëkkaale yàlla bu jigéen bi kon kooku mooy soxna Mariama Bousso mu ngi gane àdduna ci atu 1833. Euh, soxna yi nekk ci jamono jii euh, taxawaay bi nu war a am mooy roy ci moom ndax lu baax lu mu rëy rëy roy ko mooy ëpp solo boo ko royul ah da nga waxtaan rek jàll wax ca la nga xam jàll waaye nag roy bi dafa ëpp lépp solo yàlla bu ñuy fàttali ñu baax ñi fi jaaroon dafa bëgg ngir ñu roy ca seen doxalin roy ca nañ daan dunde pour ñun tam ñu jub buñ mënta mel ni ñoom it ñu góor góorgóorlu xeñtu seen mboor topp seen mbatiit seen culture maam Mariama bu sa kon soxna yi àdduna bépp a ko war a def référence def ko modèle muy soxna soo xam ni yàlla mi ko moom sàkk ko digal ko mu jaamu ko nangu woon na koo jaamu soxna soo xam ni boroom këram gi ko yàlla booleel ci àdduna nangu woon na koo topp jigéen nag bu nangoo jaamu yàlla mi ko moom nangoo topp boroom këram bi mu war a àndal ngir jur doom ju baax kenn gënatu kon soxna yëpp seen taxawaay mooy bis bu mel nii di la journée de la femme àdduna bépp muy journée mondiale de la femme ñu koy fete ñu indi figure emblématique de l'islam une femme sainte une femme de l'islam qui restera à toujours un modèle une référence pour toutes les femmes musulmanes où qu'elles soient ñu indiwaat ko ci penc bi di wax ko jigéen ñi dégtal leen ni mu daan doxe ni mu daan dundee lana nekkoon comportement ngir jigéen ñëpp roy ci moom fàttali ko ci jour bi nga xam ni bis la bu mag ci jigéen ak li muy liggéey ci société moo tax am na maam Cheikh Anta ak sëñ Afia waaye kii am na maam Jaara Buso am na Serigne Touba nekkul woon nitu neen nekkul woon nitu neen ndax nitu neen mënta jur sëñ Touba ndax jigéen ji alquran tudd ba war ni moom kenn rawu ko muy soxna Mariyaama ngir mbaaxam jàngal ko yanantu bi ne ko waskur fil kitaabi mariyama isin tabasat min ahli a makkaanan sarqiya ku baax kooka moom la ñu dippe maam mariyaama bu su mii waaye am na ñu wax ni moom moo dilsi ndax comme yàlla jagleel na ko aw saar ci alxuraan faw kon yàlla defal ko incarnation mu delsi ngir mën a jur kii wuutu yanant bi ci place am muy Serigne Touba kon xaadim rasul soxna si su alxuraan tuddoon képp ko mën a jur moo tax maam Mariama bu sa delsi jur sëñ Tuuba waaw ni mu daan doxale ak boroom këram dafa dégg moom diine xam nga yanant bi alayhi salaatu wasalaam ngeen gi mbindéef moo ni bi nag soo waxee mooy li yàlla wax yàlla moo ni wa maa yantiqu anil hawa yanant bi du waxee ci bànneexu bàkkan lu mu wax man yàlla mag ko wax loo mu wax ko yanantu boobu nga xam lu mu wax wér na nee na isa sallatil maratu xamsaha nee jigéen bu fekkee julli na waxtoom juróom respecté ko saa bu amut ngant julli ko wasaamat shëhraha nee na mu góor góorlu ba weeru koor bu jotee mu woor ko ba mat sëkk bu amee ngànt ñu xam daa am waaye bu ko amut mu woor ñu ni ko waaw mu ni wa ataat zawjaha mu topp boroom këram bi ko yàlla booleel topp sa boroom kër mooy bu nee la noppil nga noppi bul génn doo génn toogal ci kër gi nga toog waxal nga wax bàyyil nga bàyyi defal nga def kon wa ataat zawjaha topp boroom kër sëriñ Tuubaa wax na ni li tax mu tàmmoon taxaw guddi di naafi la nee na mu ngi ko jëlee ci wéyjuram wu jigéen soxna maam jaar bis lay waxtaan ak ñoom ni ko ahmadu del taxaw guddi ndax nitu yàlla yu sell yi seen marque dëgg seen habitude li ñu di xàmmee mooy di taxaw guddi dafa am benn timis mu xiin lool xaw a yëngu di ngelaw maam Mor Anta wax maam Jaara Buso ne ko soxna Mariyaamu mu ni Mbàkke Balla mu ne ko kaay nga téyel ma sàkket wii ma wuti buum takk ko moo gën a wóor bala muy taw ndax nawetal na maam Jaara Buso jàppal ko ci peru sàkket bi maam Mor Anta Sali dugg ci keesam lii dal ñépp dal ko mu fàtte ko mu fàtte ko fa ba guddi gi jàll ba fajar taw bépp di sotti ko ci kaw maam Mariama Bousso nanguwut a bàyyi sàkket bi ba suba maam Mor Anta Sali génne ci kees gi di wuti ji satala ngir jàpp fajar gi romb maam bu Bousso mu taxaw mu ni kii ku mu doon mu ni soxna Mariama mu ni ko man ci mu ni ko sam ana looy def fii mu ni démb ci timis te mbàkke yaaram yaa waxoon naa la téyel sàkket yi te démb ak tey damaa déggul nga ni naa bàyyi sañu maa bàyyi ma taxawoon di la xaar kooku ku ko sa soxna defal nga xam ni nangul na la foofa nag ñam toq ngir ragal yàllaam ndax man nii ma sama soxna déggale ndax man déggale naa ni yàlla mu ni allahu bar jigéen a ngi baax ba tey soxna mariyaama mu ni mbakke taw bépp taw na ko sa kaw démb guddi gépp ngir topp sama ndigal te xam nga ni ci ndigalu yàlla laa nekk ak jàngale alquran maa ngi dogg nag ci barkeb alquran yàlla nee na ku bég ci sa soxna boo ko gërëmee mu gërëm maa ngi lay ñaanal li mu taw démb ci àdduna pépp suuf yi laal suuf sépp yàlla na nga am doom joo xam ni bu ñëwee ruu yi aju ci moom topp ko ci yoonu yàlla ci yoonu Moustapha dina toll ni kem pepp ndox yi taw démb yàlla naa laaj bi ndax am na ko mu déet defe naa sëñ Tuubaa moom ah, ñëpp a ko topp nga dem France nga dem Espagne nga dem Italie nga dem Angleterre nga dem Amérique nga dem Asie nga dem Océanie nga dem Afrique centrale fépp ñu ngi defar ay kër yi sëñ Tuubaa di waxtaane mbiram mu am bis bu kenn mësta am ci màggalu Touba am jumaa ju kenn mësta am defar ndongo yu kenn mësta defar kon nag loolu lépp liggéeyu jur bu baax da caa bokk muy liggéey soxna bu Bousso kon lu wér la sàkket waa nga ame woon xuru Mbàkke ay yumsiku ko hunin am yatasuhu fi turab ala saa ma yaxkumun nee na jamono demoon na ba ku ñu mës a wax sa jabar am na doom da ngay laajte lu mu am bu ñëwee la jigéen nga gàññi mer kenn bëgg woon a jur jigéen booba dañuy rey jigéen di ko suul ku am jigéen ni rayal waay gàcce la déshonneur la ci man honte la ci man may génn ci pénc mi am doom ju jigéen yàlla moo ñëw ni ku teral jigéen teral la sama diine jël saar tudde leen jëlaat kenn ci yéen di mariyaama tudde ko saar yanant bi ni fonk naa jigéen fonk ko may fonkal jigéen ni ku tedd képp ay teral jigéen baa doola bu xamul dara mooy toroxal jigéen kon jigéen islaam a ko valoriser waaye nag mu ngi dévaloriser boppam fii jamono toll ndax jigéen bu demee ba ni ko yàlla sàkke mu wiñ ñi awraam teg ko ci écran ki média bàyyi ko ci ñépp di ci teg bët te les images restent nag jamono nga dem sa doom mag ñu lay wane la image yoo xam da ngay rus te yaa ko defoon kon jigéen a ngi perte valeur jigéen bu demee mën a tey summiku comme niñ ko juree fotow ngir bëgg lu neex góor ga muy bëgganteel digul ko ci internet yi addinaa ngi yàqu jigéen bu ñu demee tey ba meloom mel ni góor kenn dootul xàmmee kii jigéen la ci wateef ci colin ci waxin ci terme yoo xam dara du ci yaru addunaa ngi yàqu jigéen bu ñu demee tey ba muy jël cigarette ngaa ngi addunaa ngi yàqu jigéen bu ñu demee tey ba muy naan sàngara rusu ko addunaa ngi yàqu jigéen bu ñu demee tey ba mbaraan di liggéeyam di boole baay ak doom yoonam nekku ci ngir xaalisu adduna dem bay jaay boppam yor carnet kon nag dafay jot ci la journée mondiale de la femme ñu indiwaat une femme exemple une femme pieuse une femme docile une femme qui a euh, émerveillé tout le monde de par son abnégation son dévouement envers le Seigneur muy Mame Mariama Bousso une sainte femme pour jigéen ñëpp royaat ci dellu ci suñuy valeur Sénégal am na ñu mag ñu baax nañ ci roy Mame Mariama Bousso nii mu baaxee tey boo xoolee ko mel ni soxna Faawaat di wele mi jur Seydi Alhaaji Malick ku tedd la woon demal gaaya fa mu dëkkoon boo demee tey yoof maam Kumba mi jur Seydina Limaamul Mahdi al Muntasar ku baax la woon boo demee tey Canaba soxna Ndak Faal mi jur maam Amari Ndak Seck ma xeex sàmba Sadio ku baax la woon boo xoolee tey ji Adama Kodde sax mi jur Alaaji Omar Fuutiyu Taal ku baax la woon soo xoolee tey soxna Aysatu Jànqa mi jur Baay Ñas ku baax la woon soo xoolee tey soxna maam bu Njaay exemple bi nga xam ni Sëriñ Tuubaa nee na ko bis penc buñ ci eggee buñ nee ana ndayu kii dimbali jaam ñépp soo boobaa jugal wuyu may naa la ci ndigal ku baax la woon bu ñu xoolee tey ñi fi jur ñëpp soxna Faati sa Jóob nga dem ci yéen Jolof mi jur maam Cerno borom Daarul Muhti xool leen di mu baaxee woon kon jigéen ñaa ngi senegal baax lool ñu war leen indiwaat ci pénc mi di waxtaane ngir ñëpp roy ci ñoom kon daal jigéen na xam boppam waaw yii xew daal bu mu ci dugg na wut exemple yi ko mag ci jaamu yàlla ci njub fonk yaramam di ko muur bu bëggee am ko baax eh, yaru ci ay kàddu ndax sëñ bay Jaxate dani jabar dafay yaru tey muñ neexi wax bañ a wex rafet rafet jikko man boppam ne cib néegam lii ku ko mel kenn gënu la ci jabar